asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo beeg ziara bi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal mboolem kilifa diine yi mbokk yi tey ji euh, dëppook samedi 13 euh, avril 2019 ñu ngi fii nii ci Daarul Salaam ci kër Serigne fallu Gala Sylla ci màggal gi nga xamante ni at mu jot mu koy amal muy màggal cant moo Modou Rokhaya di màggal gu am solo goo xamante ni saa su ne mu koy ànd ak mboolem taalibe yi ak ñi nga xam ne ñoo di waa Daaru Salaam ak mboolem kilifa yi nga xam ne dañoo nekk ci Touba. muy màggal goo xam ne nag at mu jot dana ko dara jàllee kenn loolu dana ñëw incha allah sëñ Fallou Galass Syll mu mel ni ñu ngi lay nuyu te jii mu mel ni màggal gu am solo ngay defati muy cant sëriñ Modou Rokhaya ndax mën ngaa ñëw ak ñun ci taarixu màggal gi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. El Hadj Fallou maa ngi lay nuyu di nuyu mbooleem ñu jàkkaarloog ñun di ñu seetaan eh, di sant bu baax a baax eh, sunu yaakaar yi eh, di sëriñ Mouhamadou mbake di ko jaarale ci sunu bunt di seexanta Cheikh Anta Mbacke xalifa sëriñ Modou Rokhaya euh, loolu nga laaj lu am solo la mooy bis bi ak cant la ci nun ndax euh, suñ borom dañoo dogal bi yàlla dogalee ñu jóg di jàng alquran euh, suñ borom subhanahu wa taala dimbale ñu bi suñu alquran àggee ci njaareem ci loxoy sëñ Mor Mbaye Cissé waaye ñu tàmbalee sëriñ Maam Mor Mbacke mu alaaji seexu te ñaan yàlla gën ko fee yàggal gën a dooli wéram ndax lépp lu am ci alquran rek ci loxoom lañ ko amee. Eh, ñu àggalee sunu aliwa ci loxoy sëñ Mor Mbaye Sèye bindee fa ay kaamil bi ñu noppee ba ñëw ci sëñ Modou Rokhaya yàlla dogal na itte ji njëkkoon ci ñun moo doon ñu continuer am njàng wala ñu génn bitim réew dem liggéeyi bëggoon nañoo dem fu mel ne Égypte dem jàngi waaye bëggoon nañoo dem fu mel ne Gabon dem liggéeyi yaar yooyu lañ bokkoon tegal sëriñ Modou Rokhaya mu ne ñu da ngay bàyyi yaar yëpp te ñëw su fekkee ne def nga sam xëy muy man ak sa ngont di man danaa la defal loo xam ne la nit ñuy wuti ci bitim réew dong am fii jàngit lépp loo mën a jàng ci téere yi jàng sëñ Tuubaa moo ko gën boo jàngee sëñ Tuubaa bu ëllëg si biir ñi jàng dana ñëw di la laaj yooyu yaar nag euh, bi ma demee ba gisatuma ko muy euh, le 28 juillet 1996 bi mu gënee àdduna sëriñ Cheikh Anta wutu ko ci jataay bi ci laa tàmbalee gis nag mboolem loo xam ne sëriñ Modou Rokhaya waxoon na ma ko ma di ci teg sama bët loolu moo tax ma ne kon war ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ waxoon ne ko wa amma bi nihmati rabbika fa hadis e, te man lam yaskuri naas la yaskurullah e, ma ne kon jaadu na sama cant ci sëriñ Modou ma feeñal ko ba àddina bépp teg seen bët e, ma daal di koy tàmbali nag ci atu 1997 1997 laa ko njëkk a woote di ko at mu jot ma tànn xasida gi nga xam ne moo xam naa ne moom la gënoon a taxal ci àdduna muy sindi may def saa yu at mi jotee ma santaane lépp lu waaye man ci jàng si nii dañu jàngal ko ko waaye jiital ci alquranul karim ji nga xam ne nag mooy téere borom bi subhanahu wa taala euh, loolu mooy màggal gi boobaak léegi nag amul menn at moo xam ne wuute na ko defuñu ko euh, te Serigne Cheikh Anta Mbacke teewewu ko ànd ak njabootu sëñ Modou Rokhaya yëpp ànd ak itam sëti sëñ Touba yëpp ci gàttal daal bu fekkente ne bi danga may laaj lan moo waral bis loolu mooy euh, li sabab bis bi daal mooy yëg gu ma yëg ne. Eh, sama sëriñ dimbale na ma te kuñ dimbale da ngaa war a sant ma di ko sant. waaw gis nañ tamit ba léegi eh, bés la boo xamante ni yow sa eh, diggante ak kilifa yi kenn nattableetu ko muy mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Touba waaye tamit yeneen kilifa yi nga xam ne dañoo nekk ci biir réew ba ci bitim réew. gis nañ ne daaw màggal gi danga nga koo dara jàll da nga da nga doon rendre hommage Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke ñu ñaan yàlla yokk leen taas ci barkeem waaye ren nga ciy rendre hommage kenn koo xamante ni euh, daaw tàqoog moom muy soxna Baali moom soxna Maymuna Mbacke ndax mën ngaa ñëwaat ci rendre hommage googu. waaw boo gisee daaw ma rendre ci hommage euh, Serigne Sidi Mokhtar moo doon sëñ Touba te ko sëkk waaye bi mu doonee sëñ Touba it euh, daf ma bëggaloon boppam mosuma wooy lu dul bàyyi benn su ma masaa agsi rek. dañ naan bàyyi mbenn ñëw na te gis nañ sax ci ay déclaration yu ko ñor lool gis nañ ne danañ ma seen ci kanamam eh, te amoon nañu ko waxal amoon ñu ko defal waaye bëgg gu ma bëgg ak eh, jaarale ko ci sama sëriñ di sëñ Cheikh ci laay gisee ne bu ma agsee danaa ko saf ma xam ne nag ku toog ba xalif général mu mourides nga saf ko ci xolam loolu eh, ak cant yàlla la moo tax bi mu génnee àdduna li ma man mooy fas boole ko ci bis bi nga xam ne moom rek ci laay yëngatu ma ma ñaanal ko ci loolu moo tax ma defoon ko loolu ba ma ko defee itam sant naa ci seex Moustapha mii nga xam ne mooy xalifab Serigne Baara di xalifab Cheikh Sidil Muxtaar euh, mu taxaw ci taxawaay bu am solo bu ràññiku ci ak matam ak ak pas-pasam ak it xam kóllëre gi dox digganteem ak euh, kër Sëñ Modou Rokhaya ndax Serigne Cheikh Anta mooy sama wasila te ko ko sagal sagal nga ma sëñ Sidil Muxtaar teraanga ji mu ko teral ak sag bi mu ko sagal ba ba bàyyele ko ñaari doomam yëkkati oto jox ko ne ko ay dal laa ko defee Eh, loolu eh, ba noppi nag na koy dama la yóbbu Makka eh, doyloo woon ko ci boppam lool loolu képp doyoon na sëkk ci ma santaale ko ci rendre ko ci hommage waaye man damadu du def lu ma teg ci tegut ci ndigal mooy Serigne Cheikh moom ma ko digaloon na ma bis bi moom lu ci mën a xew na nga ci rendre hommage sëñ Sidi Mokhtar. loolu tax ma defoon ko sëriñ sëñ Sidi Mokhtar sëñ Moustapha yebal fi sëñ Khadim yebal fi sëñ Modou Aïssa waaye ku mel ne Serigne Cheikh nga xam ne. 97 bi ma ko tàmbalee bi fii ne amul menn at moom ko mas a manqué moom it taxaw ci taxawaay bu rafet loolu moo taxoon daaw ma rendre ci hommage euh, Serigne Touba Cheikh Sidi El Mokhtar ren jii nag ma di ci rendre hommage euh, Soxna Bali Soxna Bali mooy man may moom yàlla bu la séddalee bu la séddee ci sëñ Touba lam la séddee da ngay wan yàlla na ko cër bi ëpp na ma sax cantuk ëpp na ma nga koy sant euh, soxna Bali ñoo bokk Mandoumbe Mar Sill ñoo bokk Bamba ci soxna May waaye loo bokk ak sëñ Touba da nga koy delloowaat sëñ Touba jënde ko doon ab taalibe ndax soxna May daf ma ko mas a wax dama ñëw di ko andil addiyee ji ko sëñ Modou Rokhaya jox ma ñëw fekk fa sëñ Dame Fati mi nga xam ne tey jii eh, mooy borom Taïba Dakar eh, bi ma ko nuyoo sëñ Dame Fati ci ak baaxam muy wax soxna May na ko eh, sëñ Falloum Baye si le dem mooy agsi ni waaye soxna May la ko wax na ko daam bàyyi ko kii kat ak bokk andiwu ko fi sëñ Touba ko fi andi loolu nag ak sëñ Tuubaa ko ndax fu ma sañoon fooy dem kon ma xam ne kon sëñ Tuubaa nangul na ma sama jaayante foofa euh, soxna Bali xam loola nag doy loo ma ci boppam ba lii may wax képp ku jàkkaarloog image bi wala nga dégg kaddu gi lu ma wax sama diggante soxna Bali dana ne bàyyi na ci dara ndax nit doy loo ko ci sa biir doy loo ko ci sa biti doy loo ko ci yeneen yoo xam ne dafa xoot ba mënoo koo wax euh, te man dong du ma mbokkam waaye laylatul xadar ku ma saa ñëw rek gis nga ma imaasu laytu xadar bu ñu génn rek da nga gis ne Fallou Gallas nga taxaw foofu te ma xam-xam ci ñuy wax gënu ma cee waaye soxna Bali mooma doy ba ci bi muy eh, dem Ndakaaru waxtaan nañ waxtaan yu xóot yoo xam ne loolu it njaboot gi xam ko di Serigne Cheikh Abdou Lahad di soxna Astou eh, fi ñu ma teg kawe na lool ci xol ci xol lañ ma fa teg du ñuy manifester ci eh, ndax àdduna daa am na mbindoo waaye man pas-pasu xol bi laay seet xam na yëg naa loolu ba ci nga xam ne mooy seen nijaay moo tax bi mu génnee àdduna Eh, ma ne daal bissu bisu boppam laa war a wut nii ko sëriñ Cheikh Abdou ñoom saraxale soxna asu saraxale ko noonu soxna sëñ Modou ñoom saraxale ko noonu ni laa waroon a wootee sarax sama kër ma ne waaye naa bàyyi ba sama bis boobu ma boole koog sëñ Modou Roqee loolu moo waral ren ji ma di ko ci rendre hommage te xam naa ne li ko ci jiitu mooy li ko gën a ñor mooy alquranul karim moo tax ma sant ay daara na leen na ngeen ma seetal limub soxna Bali Maymuna eh, ngeen jàngal ma ko ci alquran soxna Bali Maymuna eh, la ñuy adat jàngal ma ko ci alquran dana takku yéene naa ko damaa bëgg tur bi dara du ci des moo tax ma na ngeen adat li mu soxna Baali Maymuna jàngalal ma ko ci alquran yàlla dogal na nag eh, loolu moo tax sababu ma rendre commence ci bis bi sëñ Fallou waaw gis nañ ba léegi sa diggante ki nga xam ne moom moo di soxna Momy Kébé moom it mu nekk kenn koo xamante ni dalaa yëg Euh, safoo la bàyyi la xel saa su ne euh, nga dara yàllal ko moom tamit bés bi euh, ndax mën ngaa ñëwaat sa digganteeg moom ak lan moo sabab moom tamit nga dara yàllal ko bés bi soxna ñu fàttali ni soxna Bally moom da nga ko ko da nga ci bés bi waaye bés bi da ko dara jàllee ren ki nga xam ne moo di soxna Momy Kébé waaw kooku moom mën na maa waxit ne dañoo bokk ndey ak baay may càmmiñam muy sama jigéen bokk ndey ak baay goo xam ne maa ngi seereel ci yàlla ne la li des ci euh, mën nañuy déggante téléphone te bañ a gisante waaw bu la neexee it mën nañoo bañ a déggante téléphone ndax wóor na ma ne pas-pas bi nga jàpp ci man du arrière man bi ma jàpp ci yow du arrière te liñ yàlla boole moo gën a foor lépp euh, aw turam mi ngi ci sama biir kër sëñ waa seere na moo koy tuddee xam tudd naa ko ba noppi nit a ko ko yëgal. ndax booba man jàpp naa ne war naa ko mën a tuddee te du ma ko wax ne ko tuddi naa la doom bu matee sëyi ma woo ko ne ko eh, kiñ la tuddi woon day sëyi loolu amoon pas-pas bi danga koy téye ba mat a rek ma woo ko téléphone ne ko kiñ la fi tuddi woon ko a sëyi tey waaye yàlla dogal na ma ne su dee def luy umpe waaye moom it eh, moog borom këram sëñ Ablaye Tage dañ dañ ma jàpp ngir sëñ Touba xam nga nit bu la xam nga koo xam ne yow du alal du dara daraja du xam-xam du man-man du dara kii ngay jàpp da nga seetal sa bopp ne mënalu la dara kon boo ko jàppee yow xanaa ñaan ak sëñ Touba kon kooku boo ko jàppee sa digganteeg moom sëñ Touba la waaye mu defal ma loo xam ne it mënatuma ko fay moom itam ci dundam ndax man damaa toog rek weeru koor ci kër soxna Bali layatul xadar xam ne ne ñu ne ñu ñu ñu laylatul xadar ba ci ginnaaw suba sa mu ne ma kar téléphone mu ne kooka nag mu ne ma mu ne ma fàllu sëñ fàllu mu ne ko Mbàkke mu ne ma damaa bëgg nga dem Màkka mu ne ko moom i loolu bokkugut sama programme ndax dem Màkka dafa am ay sart yu mu àndal te man loolu daal bokkut sama programme mënaguma ko mu ne ma ah moom de da ko jéem a man ndax benn da nga ma ko nangul nangul nanguloo ma ko ma tàggu ko sëñ Cheikh Anta ca mooy si sëriñ boo boo gàntoo ma tàggu ko sëñ Sidi Muxtaar waaye da nga ma ko nangul xam nga loolu mu ne su ko weesu bu ma la doon yóbbu yóbbu màkka yi gars yóbbu màkka mm, sax ma gàntu waaye dafa dafa dagg billet bu seer waaw yóbbu ma ci compagnie bu wax bu valable jëlal ma en charge ci sama dem dara defuma ko ci jëlal ma en charge ci la ma fay nekk jëlal ma charge ci sama retour del siwaat jëlal ma charge bu ma accès sax ba am weer du ma génn sama kër loolu googu yóbbu màkka bari na ñuy yóbbu nit màkka euh, waaye man tag tàgguwuma kenn daf ma ne lépp luy tax nga mën a dem màkka danaa ko ci def xam nga yóbbu nit màkka delloo si ko boo ci dépensé lu mat dix millions wala nangam million xam nga ne googu yóbbu màkka yéene la waaw loolu moo tax nag nit bu ne lee màkkaa ngi nii nee na la àjjanaa ngi nii ku la yóbbu rek boo amoon àjjana yóbbu la fa kon aw lu ma ko mën a fayee ci àdduna lu weesu soxna xamoon naa diggam ak soxna Bali ni ñu demee yàlla doog it féetale ko su Astu Mbàkke ba ñëpp xam ne moomi Kebe péeteem Astu Mbàkke soxna Bali di ndayam di maamam di léppam baayam it liggéeyal yàlla ci kër ci yoonu murit liggéey boo xam ne sëñ Ablaat noonu ku liggéeyal sëñ Tuubaa ko mën a doon murit yàlla war a fay te kenn nattabliwut ne alaaj Njuga Kebe liggéeyal na sëñ Tuubaa way juram soxna Mariam Jeng saa amul ñi bokk sëñ Tuubaa kenn koo xam ne da nga ne Mariam day xamoon naa ko te mosuñoo seq teraanga nii moom i Kébé mel rek ci yaayam la ko jëlee woon kon loolu moo tax moom itam ma bis bii nga xam ne ci lay rendre hommage euh, soxna Bali euh, li ma li ma gën a ñor mooy ma dara jaale ko ko moom ma dara jaale ko ñoom bañ xam ci sama digg moom waaye xam diggam ak soxna baali loolu moo tax ma def ko sëñ Fall. voilà jërëjëf sëñ falo Galass mu nekkoon kàddu yi nga xam ne taataan nañ ko ci moom mu jëm rek ci cant gi nga xam ne màggal la muy cant Serigne Modou Rokhaya nga xam ne ni mu ko waxee depuis 1997 mu ngi koy amal at mu jot nag mu dara jaalee ko kenn waaye di ci rendre hommage tamit euh, geneen kilifa. xam naa rek mbokk téléspectateur ñu fas yéene ànd ak yéen lépp loo xam ne day bàyyeekoo fii nii ci Daaru Salaam ci cant gi ñu fas yéene ne ko jox ci seen chaîne Assalaamy TV ak mboolem waxtaan yi ñu fi am ak kilifa yi nga xam ne incha allah daañu fi ñëw ba ci